tabarkal la tabarkal loolu la yàlla dogal ah yéen lu nu am tabarkal la yéen it nun ngeen am du dëgg loolu la yàlla dogal incha allah la yàlla dogal de xëy na jamono nag léeg rekk mu xaw wow léeg mu xaw baax waaye nit nag njàmbaar rekk ko war njàmbaar moom tabarkal la tabarkal ànd ak njàmbaar rek mel ni lool rek la dëgër dëgër dëgër dëgër dëgër dëgër am sa pas-pas rek pas-pas pas-pas dëgër am sa pas-pas dëgër rek am sa pas-pas tabarkal loolu rek mooy lii ci nekk xam naa buñ ma yow yi wonit mu baax de <laughs> laa mi ngi naaj ci nak ta daw dafa am kuma ne ah yaa nga téye nit ñi ba wuñu suba mu fatali ma li sëñ babakar waxon bay sal ah, na sëñ babakar dafa ma ni wol ma responsable politique yep bu ci gën dess lay ñëw wusi ma ci 4 heures ma ramassé leen ñoom ñëpp indi ci kanamu sëñ Babacar si mu tenir ñoom waxtaan ci quatre heures ba minuit fa mu toog jógu fa mbay sàll fëgg ko ñetti yoon ni ko góor gi julli nañu tàkkusaan julli timis mu ni ko ci julli laa nekk waaw xamaloo sax li ngay wax ci julli laa nekk ndax mbiru réew mi lay wax caaxaan baaxul waaw keroog leneen góor gi wax ni fu ngeen taxaw ma taxaw fa pour dimbale leen te man nag yomb naa àndal ndax duma leen ñaan paas màkk duma leen ñaan médaille te duma leen ñaan depaas ndax yëpp Alaaji Malick defal na ma ko waaw detal loolu neen nag kon yomb naa àndal waaw yomb naa àndal de waaw duma leen ñaan dara dara dara duma leen ñaan dépense du ma leen ñaan paasu Makka te duma leen ñaan médaille kon nag yomb na ma àndal waaw loolu leen sëñ Babacar wax dama ndax yooyu yëpp Maodo jox na ma ko ah ma ni ko yow rek nag ah nun bokkuñu ci parce que nun nag noog ñoo ma àndandoo di xare il faut nu jël suñu wàll loolu kay moom kenn amu ci pexe loolu kenn mësu ko gis waaye ci kanamu ñépp la taxaw ni leen ku yomba àndal la seetal loolu hmm? ku yomba àndal la ndax duma ñaan kenn dara duma ñaan kenn dara ah, loolu de tabarka la yàlla la Senghor dafa dafa ñëw fii ci Tivaouane di rendre hommage sëñ Babacar bu baax boobu fi jógee dem Ndakaaru rek am ñu ma téléphoné ni ma yaa ko digal yaa ko ko ma ne ah Senghor sañu rendre hommage sëñ Babacar si te muy wëllëre ñu dramatiser affaire ba moo tax Sénégal yàlla musal nu yàlla wusal loolu kenn mësu ko gis ni rekk lu tax muy rendre hommage sëñ Babacar Si mës nga gis loolu sëñ Babacar Si di wëllëreem man mii may wëllëreem ah loolu kenn mësu ko gis ñu ne bu ñu ko rendre hommage mukk mukk mukk mukk te ñu koy wax kat c'est des irresponsables des irresponsables loolu kenn mësu ko gis coow ko fii coow ko fii coow ko mujj bët yi sax dafa taan ni ma mës nga gis lu mel nii lii kenn xamul lan la moo tax bi fi général de Gaulle ñëwee dafa àddu rek man leen sëñ Babacar la Maodo lay paraphrasé ak sëñ Babacar si que dafa ñëw dinu joxoñ naan vous les démagogues là vous les Sénégalais vous pas commode loolu la absence de commodité

ndax man mii daan naa jëfanteeg moom dëgg-dëgg moom mësul fàtte mukk position bi ma jëloon pour soutenir politique ci cadre communauté franco-africaine mësu ko fàtte mukk seetal loolu waaw looloo fi nekk ba léegi man du ma ko def waaye yéen koy def parce que yéen a ca toll du dëgg sëñ Babacar nee na toll ca def ko dara ne ko ci paase ko bàyyi ko dara nëbb waaw moo ko daan wax ci lam ñam nee na ca def ko dara nëbb ci paase ko bàyyi ko dara nëbb ci moo ko daan wax waaye comme yéen ci toll ngeen bàyyi seen xel ci seen bopp te ngeen am njàmbaar te ngeen am pas-pas du dëgg hmm. kooku rek mooy li am solo tabarkal tabarkal tabarkal mu mel ni kon nag yu jàng fatiha ñu jàng juróom-ñetti suratu Quraysh du dëgg أعوذ بالله من الشيطان yàlla bu leen rus yàlla bu nu rus yàlla bu leen rus yàlla bu nu rus yàlla yàlla faj aajo yi te yàlla faj feebar yi te yàlla taxawunu mën na ko te yonent bi am te moo fi dajale ci barkeem yàlla sàmmal nu jaboot yi sàmmal nu ñu yaram yi sàmmal ñu bakkan yaag ruux yi tabarkalla te yombal yoonu yiw yo yombal yoonu yiw yombal yoonu yiw te jàpp yi ci sunu loxo tabarkal la ba dara bañ nu fakkatal na ko yàlla def nuy daje nii rek di dajewaat di daje di dajewaat di daje di dajewaat yal ko yàlla def bëgg nañu tey bu baax a baax ak guddi yiw la te dana yóbbaale weer yóbbaale at am na lu nu leen digaloon daaw sax ni dina nu wër waxtaan waxtaan mujj nu ko def ndax ni jamono bi yëngoo woon waaye comme mi ngi dal si ndànk nag bi yoon fas lu ko yéene def ci kàttanu yàlla du dëgg ah kon nag ba jëmmi jamono daal ci kàttanu yàlla lu bàyyi leen xel ngeen bàyyi nu xel parce que seen ñaan daf nuy jëriñ bu baax a baax waaye sunu ñaan it daf leen di jëriñ bu baax a baax ci daraja yonent bi tabarkalla ak ci barke sëñ Babacar tàllal seen loxo jublu ci yeesal ak yëpp tabarkalla ñëpp tabarkalla te def ñaan nag yàlla sàmm leen yéen ñëpp te ngeen santal nu ñëpp nag waa sécurité ba yeeg kilifa yeeg tabarkalla waa sécurité bi surtout sonn nañu lool waa ca Ndakaaru ba léegi ñu ngi sonn rek di sonn tabarkalla na yàlla sàmb leen tabarkalla ñu teewlu ko nag ñu yeeslu ñu ñaan tabarkalla ñuy tukki itam ñu bàyyi leen ñu tukki te ñëw am na ñu doon tàggu nañ leen defal ñaan fii ci tànt bi moo leen gën a dudal acca bopp I think you have.